en pleine élection présidentielle am ñoo xam ci ay proches mais opposé un net catégorique bi nous faloo pare demul ji Touba. un moment parce que la communication verbale et la communication non verbale parce que bu nous campagne jaarul Touba nous ci cité religieuse mu falu dire, diir demul ci ben cité religieuse lo cela veut dire ce que cela veut dire maanaam ñu faluñu wuñu te bokkuñ ci sama gestion benen bi moy ñi and ak ñom ñëpp la lay limal dama lay limal les figures les plus reconnues ci ñi and ak ñom Sonko ci bande bi mm-hmm. Mm-hmm. Pape Alé la les chefs religieux la mafia politico-religieuse ñi ci cité ñom sëñ Bass Abdou Khadre di ci cité ay xalif généraux dem ba xale yu ndaw yi dañu décoder signe yoyu ba tuddé yenn xalif généraux yi ay nervis religieux yéen ko doon gis ci réseaux sociaux yi suñu xalif généraux yi ay nervis religieux la leen tuddé won lan mo tax loolu parce que Ousmane Sonko dafa annoncé won les couleurs ngañ dem ba bu mu toogee di wax naan dañu am dawa, bu ñu indi. Mm-hmm. ñom au lieu ñu yem ci cadre politique def sen politique la gestion des affaires de la cité mais légui dañ bëgg gérer suñu affaire de foi affaire de confession. dañu dem bëgg a gérer loolu. c'est-à-dire ñu ngi xaabaabal beneen bi mooy tey Cheikh Omar Diagne bu demee euh, Serigne Touba n'est pas dans mon cœur mais est-ce que moom moo war a wax loolu Serigne Touba n'est pas dans mon cœur dem bani grande mosquée bu Touba dafa am ay insignes maçonniques dem bani ni jamonoy màggal jamonoy gàmm jamonoy Ashura ci vous blanchir xaalis ci vous dougal dugal drogue bi ci lañuy une dugal yenn armes létales yi Touba Cheikh Maye il a très tôt compris parce que dem na ba ci allocution boo xam dama koy déglu mu passage boo xam dama ko dama ko retenir dama rewind mu ne yéen yi bu ngeen développer Cheikh il est respecté partout. Mm-hmm dans le monde mais ci Sénégal joxuñu ko fi cëram euh, le porte-parole des Lions, mais def na ci allocution sëñ Bass amul luñ ko fi tuumaalul ci lo ci lo dafa injurieux wala des propos insolents tek nañ ko général de de de des mourides amul luñ ci mais nous, nous def yow waru la en tout cas man ba pareil, lettre bi mais dafa fuité fuiter. Comment la lettre bi parce que ils sont dans le populisme def nañ ko ba paré wan ñun kat bëgg rationaliser. mais légui souci rationalisation d'accord. Tout Tout mhm. Touba ci pèlerinage magal, day Google pratiquement plus de 6 millions de pèlerins ay chiffres officiels la ñom ñoko wax mais 6 millions de pèlerins ci ban ban pèlerinage la am ci monde bu c'est c'est moins de 4 millions. plus parce que c'est très sélectif. c'est limité c'est limité boo demee Inde amul mais le Sénégal mu est un seul pays dans le monde muy dajale lu Du un chiffre d'affaires ça avoisine 300 milliards ñëpp di converger vers un seul lieu Tijane day dem même nos frères chrétiens catholiques sont dem Magali. mais loolu boo ko amee am vous propos yoo xam que vous tenir Mélenchon bi mu au Sénégal. fan lañ ko dugal Lukkin Fat Palace euh, l'avocat là euh, Juan Branco bi mu ñëwee fii fan lañ ko logé mais ñooñu dañoo gën seeniñ Touba wala ay ganu Serigne Touba cest à ñii lu ñu def nii man bettu ma xaw ma ku muy bett mais man du man moo tax jàpp nañu ni Diomaye li mu waroon def pour laver son honneur mooy il doit se départir de Cheikh oman Diagne ni ko démissionner dañ ko démettre de ses fonctions. parce que ben, répondre aux critères de compétence ben, benn boo xoolee lettre bi rek mise à part faute yi ak contenu bi da ngay xam ni kii matewul lu ñu koy doyee ñaar mooy insolence bi mu ci àndal en s'adressant à des guides religieux dafa am un lang un minimum de décence boo xam nga war utiliser ce langage. Mmh ma pense ni nag dañ dans une république qui xam ni république sénégalaise